projet bi pour nit ñi xam fi ñu dem en fait xam naa présentation projet bi man mi ñu jël en tant que ñu formé ñu au niveau international je pense que am na ñoo xam ne ñu formé nañ leen au niveau pays muy le président Djibi Pape et d'autres on a formé au niveau national parce que ñun la ñu formé woon ñu dem Bénin dem Niger wala ñëw def des multiplications def ko continuer di former les membres avec la fédération di wax gars yi que ne aucune lutte ne se gagne seule il faut que ñu conjuguer effort yi il faut que ñu àndandoo ñi nga xamante ne dañu toog fii yëpp nekk ci ay organisation ñu conjuguer euh, ñu def appel à toutes les forces vives ñu accompagner ñu projet bi pour ñu mën ko réussir parce que soo bëggee accessibilité ñu résoudre ko tey di nga ñëw nga ànd ceeg ay nit parce que bu ñuy àndee ñu ànd du am solo. di ñaan jigéen ñi surtout ñu bi ñu parce que sook bi gën a rey euh, je pense que jigéen ñi euh, man nag tey man maa koy présenté parce que dañu amoon habitude ñun suñuy organiser dem xooli keneen indi ko mais tey personne handicapée yi am nañ consultante bu mën a présenter la convention relative aux droits des personnes. dañ ciy remercier nag la fédération di ko remercier parce que tamit ni ko madame la chef de projet waxee. appel la woon pour ñu jël des experts internationaux ma postuler ma jàll donc suñu formé dañ koy dañ leen di remercier di en passant di remercier ki nga xam ne jot naa ko formé pour le président Djibi Ba je pense que sama président la mais tey may consultant tamit ci salle bi merci beaucoup ñu ñëw bref aperçu rek bala ñoo dem euh, ci li nga xamante ne mooy journée de partage bi qu'est-ce que c'est la C'est une convention qui définit toutes les dispositions que les États doivent prendre afin de s'assurer que toutes les personnes handicapées puissent jouir des mêmes droits humains que tous les autres citoyens. Vous avez un aperçu qui lui définirait handicapé. C'est une personne genre déficience groupe ethnique wala ñu ñëw am environnement bi am barrière yi soo barrière bi da ngay dindi handicap donc handicap dañ koy définir ci koo xam ne am na loo ko manqué mais selon environnement bàyyi saa yi boo ko mu yem ak ki nga xam ne lu handicapé. pourquoi faut-il convention sur les droits des personnes handicapées parce que les handicapés subissent constamment la discrimination et de nombreux obstacles dans leur environnement souvent aussi les États ne savent pas comment faire en sorte que les handicapés puissent jouir de leurs droits au même titre que les autres citoyens. De nombreuses fausses idées sont véhiculées sur les personnes handicapées et très peu de personnes s'attendent à ce que les personnes handicapées soient capables d'accomplir quelque chose. Nous avons besoin, besoin de changements dans les lois, c'est systématique ça, parce que une loi, vraiment, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Actuellement, on est à l'approche droit. l'approche cloisonnée qui nous concerne tous. Quelles sont les principes clés de la CDPH Vous avez les personnes handicapées méritent respect pour ce qu'elles sont et sont libres de faire leur propre choix. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que souvent, vous avez l'État devant vous, on vous propose un poste de standardiste alors que vous êtes comptable comme Khadima. Ce n'est pas intéressant. Il faut que nous choisissons notre poste, il faut qu'on choisisse nos accompagnants, tout ça. Les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres communautaires au même titre que les autres, doivent être impliquées et prendre part à la vie communautaire au même titre que les autres. Tout le monde doit respecter la différence, accepter le handicap comme partie intégrante de la diversité. Quels sont les principes clés la CDPH Tout le monde a droit à l'égalité de chance. Chaque jour, on en parle, l'égalité de chance. Tout le monde a droit à équitable à tous les services et infrastructures au niveau de la communauté. mbooloo tey jii dañ fi ñëw représenté fi maire Racine Talla maa ngi tudd Aliou Dia nekk chef de cabinet nekk chargé de mission la présidente de la République papa bi Racine Seye mu nekk modérateur ñëw fii gis fii Omar Baye mu nekk président des handicapés bu ak ki nga xam ne mooy xarit bu baax représenté femmes yi ak toutes les personnalités yu ñu fekk ñëpp ak ONG organisation groupement de femmes yi imam yi délégués yi handicapé yi forum civil toutes les personnes les journalistes encore tey jii bis bi solo bu mu am moo tax tey le maire mu insisté moom moo bëggoon ñëw boppam bu gisee man ma yéex a ñëw parce que maa ngi woon sa activité bu nekk fële waa banlieue kii ñoom Malal Talla si Foumac si ambassade de France ñëw fi daa doon représenté maire mais il a beaucoup insisté pour que Mame Oudou ñu ñëw teew ko fi parce que moom moo fi war a ñëw pour empêchement de nit ñi tey jii li ñuy wax li nga xamante muy convention internationale relative aux droits des personnes handicapées nga xam ne mu nekk décret état du Sénégal gouvernement bi jëloon ay engagement accompagner ñu xam ne ñu ay waayu daaw te amul conflit léegi mu ne handicapé amul c'est de mentalité parce que quand on parle de l'handicap ça peut être physique ça peut être mental ça peut être mooy nit ki nu mu koy jàppee la ak nu mu koy gëmee wala nu mu koy philosophie doomu aadama nit ki boo bëggee def dara nga bëgg jàng wala nga bëgg dara wala nga bëgg def dara sa handicap warul freiner bañ a aboutir te loolu moo tax tey ñun ñu loolu quand on parle de l'éducation pour ni tey amoon na ay temps si ginnaaw Sénégal amoon na yenn nit d'handicap yi xale bu amee du nangoo ay waajur bu ñu nangoo mu dem jàngi parce que dañuy bañ moroomam yi di ko ñaawal loolu tey ak l'éducation inclusive te yàlla def fii si Guédiawaye ñoo am benn école boo xam ni moom mooy école inclusive mu nekk commune Wakhinane Nimza mu nekk Pikine 23B loolu boo mu amee dafa amoon injustice boo xam ne moo fi amoon injustice boobu maanaam bu ñu doon joxee fourniture scolaire dana jënd ay big kay alors que ces types d'enfants là même les enfants malvoyants ak non-voyants ñoo xam ne seen gis-gis baaxul leerul ñoo xam ne mënuñu gis wala si max la ñooñu ñu jàngee kay yooyu méthode Braille yi ñu jàngee kon fourniture yi ñu doon joxe ñoom bokkuñu si woon dana leen exclu loolu mu nekkoon ségrégation man ma bokk su ma ko xeex parce que je suis un militant des droits de l'enfant ma jaar beneen éducation développement. asalaamaaleykum. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di wax ci turu Yoro Niang vu l'importance du jeu de moo tax man mii tamit moom waroon am fu ma dem mais mënuñu ñaar ñëpp mënuñu absenté loolu moo tax tey jii mu jabar ma man ma leen naa la mais Yoro mi ngi leen di remercier di leen féliciter encore une fois et maintenant la session bi jeex dina fi ñëw pour def acte de présence si on parle de personnes handicapées on peut pas occulter l'action sociale parce que nous sommes leur répondant au niveau du ministère de l'Action sociale. Donc, les personnes handicapées font partie de nous. Ce sont nos cibles traditionnelles. Tout ce qu'on fait, c'est pour œuvrer pour leur promotion et leur protection sociale. Euh, par rapport au thème, la Convention des droits des personnes handicapées, Nous sommes en phase avec la Convention des personnes, euh, euh, des droits des personnes handicapées et des objectifs de développement durable euh, qui compte, qui, qui tient compte euh, de la dimension sociale, économique et culturelle. di wax que rapport à l'accompagnement des personnes handicapées les ODD et les conventions des droits des personnes handicapées tiennent compte principalement des fondamentaux qui sont le respect, la dignité, euh, l'accompagnement, la non-discrimination et l'action sociale œuvre pour le droit. par rapport à ça, nous effectuons euh, toutes les démarches effectives pour la formation, l'éducation. Parce que le monsieur le maire vient de parler tout à l'heure de l'école inclusive. Et l'action sociale, pour amener l'action sociale, c'est pour protéger les personnes en situation de handicap et lutter pour leurs droits. Si l'on nous par rapport à leur formation, par rapport au maintien des enfants au niveau des écoles par rapport à l'accompagnement des familles parce que lépp looy def aussi par rapport à cette cible il faut partir de la base xool les problèmes yi nga xam ne euh, enfants yi xale ñu ngi koy dund mais personne en situation de handicap yi aussi ñu ngi koy dund donc nous nous pour leur non discrimination pour leur participation au développement de la société parce que handicapé Euh, ak personnels yi. damay fàttali ne maanaam madame Kandji chef euh, chef du projet bi wax na ko léegi te ne waa VLF yemuñu rek ci géejawaay ñu ngi travailler ak CFESAF mooy CFESAF mooy comité bi nga xamante ni moom moo lëkk bépp association boo xam ne personne handicapée la te mu nekk biir Sénégal boobu waa VLF fa am benn projet te ñu ngi koy déroulé bu baax euh, fële à à Castor. projet bi nag moom man maa nekk gestionnaire du projet bi foofu au niveau de CFEA avec notre présidente madame Dieng bi nga xamante ni ñëwul tey dafa am empêchement Fama moom moo ko représenté fii Fama ñu ngi lay nuyu wax soo demee nga wax euh, madame Dieng ñu ngi koy remercier te euh, ñu na envoyé parce que dafa sangoo suñu bés moo tax mu yónnee ni pour ko teewal fii bàyyi ma kenn euh, waa section féminine lu ma limee daal damay juum waaw maa ngi <laughs> gërëm man maa ngi tudd Fatou Diop man maay secrétaire général section féminine bu Guédiawaye maa nekk damay ñëw nag pour def une présentation bu section féminine Guédiawaye parce que section section féminine bu Guédiawaye suñuy seet euh, dafa nekk démembrement boo xamante ni ci ANHMS euh, association nationale des handicapés moteurs du Sénégal